mbokk yi ñu teewlu ci leeral TV ak leeral point net dalee jàmm ci xibaaru bés bi tey ji nag ñu fas yéene ko doore ak kàddu yi ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Kane nekk directeur général bu global moom moomee bi nga xamante ne daal dinay dal ci nakaw nappkat yi nekkee fële ci diwaanu Thiaroye sur Mer ne nag nekk lu bees fii ci diwaanu Afrique boobee feebar nag daal di laal localité yu bëri fii ci Sénégal rawatina Thiaroye sur Mer Joal ak fële nga xamante ne nag moom mooy ci diwaanu Mbour bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi ki nga xamante nag moom mooy spécialiste de l'écologie marine mi Ibrahima Kane nag moom lu xamle boobee feebar ak yooyu séntoom nemmeeku woon nañ ko nag fii ci Afrique lu toll ci fukki at ak ñett amoon na fële nga xamante nag moom mooy ca wàllum émigration clandestine fii ci ndakaaru nag ñu xam ne bateau chinois ñoo daal di romb lu toll ci juróom-ñetti néew ci géej gi fële nga xamante ne nag fi nga xamante nag moom mooy a mi nga xamante ni moo joxe yooyu xibaar mu ngi xam ne juróom-ñetti koor yooyu nag ñu ko daal di ko fële ca port autonome bu Dakar yooyu ndaw nag nekkoon ñoo xamante ne dañoo jëloon gaal gi dem réewum Europe yeneen i ndaw yoo xamante ne jëloon nañu gaal gi dem fële nga xamante ne moom mooy ca Europe ñu daal di naa teg loxo fële ca diwaanu Libye ñu toll ci ñaar fukk ak ñeent nekk nag ay doomu Sénégal yoo xamante ne dellusiwaat nañ leen fii ci réew mi bu ñu sukkandikoo nag ci laas ñu ngi xam le toll ci juróom-ñeent fukki migrant ak ñaar moo bloqué woon nag fële nga xamante ne nag moom mooy ca diwaanu Libye kuréel gi ëmb migrant yi ci àdduna bi yëpp daal di leen dellu si ku ci nekk ci sa am réew fii ci Sénégal nag ñu toll ci ñaar fukk ak ñeent bi am ci juróomi doom Guinée nag am ci lu toll juróom benn fukk ak juróom ñett ci ay doomam ñoom ñëpp ku ci nekk daal di dellu ci sam réew a xibaaru bés bi ñu wax nag ci yeneen di chiffres yoo xamante ne journaux yu bëri daal dinañ koy xëyee ci bésu tey bi ñeel feebaru mbas bi ñu xam ne nag fii ci Sénégal boobee feebar daal dinay tax ba ñu tëj lu toll ci juróom ñaari junni entreprise yoo xamante ne nag ay ndaw dañ fa doon daan seen doole ñu sukkandikoo nag ci ay études yoo xamante ne kër gi di ANSD moo ko daal di xam ne ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin jàpp juróom benn fan ci weeru août lu toll ci nag 2,5 pour koo xayma nag ci deux cent quatre vingt quatre mille nekk nag ay unité de production informelle yoo xamante ne nekk na fi ci réew mi loolee lépp nag daal di tëj lenn waralu ko lu dul feebaru mbas mi bu ñu gënee xuus nag ñu ñëpp daal di taxaw yooyu chiffre nag l' observateur xëyee ci bésu tay bi 9,2 pour cent nekk ay entreprise yoo xamante ne jamono ji ñoom seen liggéey lépp dafa daal di taxaw 2,5 pour cent nag nekk ay entreprise yoo xamante ne jamono ji dañoo tëj te lenn waralu ko nag lu dul feebaru mbas bi ca Ouest Foire la ñuy dem ay soxna nag yu doon jaay seen topp ay soxna nag yu doon jaay seen bopp la yoon daal di teg loxo ñuy xam ne nag ñaari téeméer ak ñeent fukki paquet préservatif lañ fa daal di fekk juróom-ñeenti bouteille yoo xamante ne nag ay lubrifiant la ñu fekk ko ci yooyee soxna ba tax na sax ñu daal di teg loxo ki nga xamante ne nag moo moo ki nga xamante ne moo doon gérer boobee auberge ak ki tamit moom moom boobee auberge ñoom ñooñee ñu doon nag jann ak attekat yi ni ki démb fële nga xamante ne nag moom mooy ca tribunal grande instance bu Ndakaaru ñu leen di toppee nag association de malfaiteurs wàllum proxénétisme a fekk tamit ci ñoom yamba bu takku ba tax na nag section de recherche amaloon ab liggéey bu rafet foofee nga xamante ni nag moom mooy ca douane Ouest Foire bu ñu sukkandikoo nag ci les Échos mu joxe bi le xibaar mu ngi xamle ci boobee auberge ay soxna lañ fa dalaloon yoo xamante nag dañ doon jaay seen bopp di xamle fukki junni la doon laaj yi nga xamante ñoom ñooy ay client woo nag benn soxna boo xamante nag dafa sëyoon ba tas fa daal teg loxo li ko waral nag dafa am benn doom boo xamante nelawul ci sëy ba tax na sax ba mu noppee ci wasin boobu daal di jël doom boobee daal di koy faat mbir mi nag mu ngi xewee fële ca diwaanu Niodior nekk nag ci région bu Fatick benn soxna bu ay atam toll ci a juróomi at lañ ko daal tëj joo xamante nag da koy tëdd yooyu xibaar nag Le Soleil moo ko daal xamle boobee soxna nag ci fàttali sëyoon na nag am lu toll ci juróom benni doom ba mu ëmbee nag ñu xamle kii di Pape Lo mu ko daal di ëmba nekk ab boucher di liggéey foofee ca diwaanu Ñoojoor bi mu amalee nag li ni mel moom Pablo ñetti weer la toog boobee soxna dégg ko amul benn xibaar jëm ci moom loolee tax sax ba soxna bi daal di def li ni mel ca Touba la ñuy dem benn xale bu ay atam toll ci juróom-ñaar dong moo fa doon fo nag ba benn camion daal di koy fël mu daal di fay jaare rek ñàkk bakkanam mbir mi nag mu ngi xewee fële ca diwaanu Touba ca quartier Ndaamatu ay boori digg la ko bi daal di fël loolee yooyu xibaar nag Seneweb moo ko daal di xamle bi mbir mi amee nag koy teg loxo tijji ab enquête jëm ci moome mbir di ko toppee nag wàllum faat Maimouna Sissoko daal dinañ koy tabb nag mu nekk njiit bu nag moom mooy case des tout-petits fii ci Sénégal ñu daal di koy tabb niki démb ca conseil des ministres bi nga xamante doon nañ ko amal mu nekk nag directrice générale de l' nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits ci boobee poste nag mu daal di fay wuutu ki nga xamante moom mooy Thérèse Faye Diouf ñu wax nag Ahmed Aïdara ñu sekkoon ko nag ak ki nga xamante ni moom mooy Alioune Sall ñu leen doon nag atte fële ca tribunal grande instance bu Ndakaar boobee procès nag ki nga xamante ni nag moom mooy maire bu Guédiawaye di Alioune Sall da ko daa deelaj defuñu lenn lu dul bàyyi ki nga xamante ni nag moom mooy Bougane Gueye Dany Ahmed Aïdara yu dellu ci seeni activité Libération Online moo daal di xam ne yooyu xibaar mbokk yi ngeen jëf mu nekkoon xibaaru bés bi ñu leen ko doon dégtal ci biir Leral leen jaajëfal bu baax baax leen wax ngeen wéy di suivre programme yu